Assalamualaikum. Eh, mbok sénégalais yi nuyu na leen bu baax di leen xiar di leen wax jumaatu mubarak wa dama bëggal ñëw pour tuuti rek ci comme eh, eh, vidéo yi nga manki jot ci wàllug digënté Adji Sarr Ousmane Sonko mu si dégg wax yo xamni ni day melni ni sénégalais yi nag gëmuñu seen bop wax yo xamni wax dëgg yalla ku koy wax nekkul sax da ngay japp ci combat bi jappal ni yow da ngay tardel combat bi quoi dafa am kuma dégg ñu né pour léegi ñu génnee ay vidéo kii quoi nu mu tudd euh, MC Niass yi audio yi mu def ak yéen yéen lan ngeen di doyati preuve Sénégal tollootoo leen ci ay preuve de affaire Adji Sarr bi lii ku mu ku mu doyut li fi jot a génn nii ku mu doyut wax dëgg yàlla nga naan ay yeneen preuve xanaa wóolootu leen seen bopp ci li nga xam ne nii lii lii ban preuve lan soxlaati seen débat yi fi mu toll nii li mu war a nekk mooy nan la ñuy def pour maître El Hadj Diouf avocat bu mel ni moom fenal ay nit. ba mën mënoo leen indil problème mënoon leen sànq avocat yi mel nii nan la ñuy def ba ñu jóg fii avocat yi mel nii nan la def ba tëj yen yéen looloo war a nekk seen wax ki nga xamante ni sax mooy kii tamit euh, tur bi laa fàtte mooy kooku nga xam ne moo nekk ci procureur xaw ma Basirou Gueye xaw ma lu mu tudd maanaam jël PV jàmbur soppi ko ngir sànq ko ci loo xam ne lu rëy fa àtte war a tàmbalee lu mel noonu cim réew ku mel noonu def lu mel noonu kooku nan lay def ba tëj ko yaakaar naa ne foofu ngeen tollu mais tolloo leen ci ay dossier Adji saar bi pour ay yeneen vidéo lii bu leerut wax dëgg yàlla ana lan moo leen di leer day mel nii xam ngeen seen xeex bi dafa war a ànd ak fulla fayda am na loo xam ne du fulla du fayda am na yoo xam ni ku koy wax sax da ngay fowee sénégalais yi quoi mais lii lu leer lu mel nii wax dëgg yàlla loo xam ne ne fàng loo xam ne kenn jeexatu ko kenn wëratu ko ay waxi Adji Sarr moom ci côté da ngeen ci war a pare ci ay côté comme ay lu leer ak ay nan indi vidéo ak nan indi lii leeral ak mais loolu day mel ni yow nekkuloo ci dëgg day mel ni ba tey yow yaay compliquer affaire bi mais fii dara compliqué wu fi affaire Adji Sarr bi ay du dil la ay ndëgg sërëx la ay fen la leer na loolu moom da ngeen ko war a jël laf ko côté leneen li ngeen war a xool kay mooy ñi ko fenal mooy affaire bi ci ñum këpp ci seen kaw ñi doon teg seeni pexe pexe yi ñu doon teg maanaam mu këpp ci seen kaw léegi yéen fi mu toll nii loolu mooy seen problème ndax juge yu mel ni normalut ñu mel ni maître El Hadji Diouf di àtte nekk ay avocat Sénégal yéen fi mu toll nii lii mooy seen wax mais nekkatul ay Adji Sarr vidéo MC Niass vidéo même ba amee mu dëgg loolu nit amul amatul leen njariñ ndax li ngeen ci doon ut mooy pour preuve pour Adji ndax moo def Adji Sarr ndax day fen Adji Sarr mais lii moom leer na naa ñi bu dee yéen ngi ci toll foofu moom tolluwaay boobu ngeen koy wax ay vidéo yi na gën a génn kon yéen pareegoo leen loolu moom ngeen baa ci xel bu baax a baax léegi beneen bi tamit ma ñëw tamit ci beneen manipulé bi nga xam ni gars yi ngi leen koy def Kaliphone dafa génn mais man waxam bi dégguma ko woon quoi après ba mu defee live ci laay soo ko comprendre Kaliphone ni mu dikkee léegi ñii toll nañ foo xamante ni si ñoom li nu def dafa rëy li nu def dafa ñaaw li nu def li nu def dafa nekk yëfu cuune boo xam ne fii ren war a jaaree wàcc waratul jariñ dara ci réew mi waratul tekki dara ci réew mi waratul leen teg fenn léegi nag fi mu toll nii nag li pexe bi ñuy ñëwaat léegi bi Kaliphone di duggee léegi mooy ku jàppoon ci Adji Sarr ak ñu mel ni Kaliphone léegi da ngay ñëw léegi nga jéem a débrasé wu ci Adji Sarr wane ni Adji Sarr dafa bon loolu ay dóor la nekkul question jëmmi Adji Sarr dafa bon mais beneen politique la bu nu indiwaat ci suuf pour yéen yeewu yéen activiste yi pour ngeen yeewu yéen sénégalais yi dóor boobu mooy lan mooy léegi ñoom dañuy ñëw ne Adji Sarr dafa def dafa kii nan suul dossier bi léegi fi mu toll nii li leen arrangé mooy affaire bi dem na ba leer affaire bi dem na ba nekk dajji fàng lii problème la liñ doon gasal kàmb gi ñu doon gasal Ousmane Sonko ñoom ñoo ci dugg ñoo ci surux léegi nag li leen arrangé mooy coow li fay li leen arrangé mooy dossier Adji Sarr ñu teg ko fële moo tax ay kalaasu Kaliphone gii di génn naan leen dossier bi lii day fen amul foto amul vidéo ay caaxaan ànduma ci loolu pour lan la pour léegi dossier Adji Sarr bi mosoo leen dégg télé yi wax ci dafa mel ni dégg naa TFM xaw ma li ñu ci jot a wax waaye ñaawul daal télé boo leen dégg mu dugg tey ci Adji ñëw ne leen ci jàmm la ci jub télé bu mu mënta doon bu ci bu ci mënta génn képp koo xam ne génn na ci naan leen léegi dossier Adji Sarr liñ ciy wax mooy dossier bi taal na dëkk bi dossier bi def na lii dossier bi def na lii léegi lin ñu bëgg moo ñu teg ko ci suuf pour jàmmi dëkk bi jàppale ni kooku setan la kooku sotkat la bàyyi leen ci xel mbokk sénégalais yi ndax fi ñu toll nii dossier bi dafa këpp seen kaw ñoom li ñu def baaxut ab juge du fen ab ay procureur waroo toog di àtte loo ay caaxaan la ay nit waroo jël tuuma ngeen teg ko ci kaw lii defet la si ñoom boo xam si lii da leen di topp ba 2024 lii point la boo xam si daf leen toroxal dafa leen weer dafa wane seenu bon dafa wane seenu saay-saay léegi nag ñoom seen problème bi ñuy xeex léegi nekkatul ay dossier aji saar ay aji saar li na coow li fay ndax xam nañ ni duñ ci génn xam nañ ni génnuñ ci xam na ni défaite la si ñoom mais défaite boobu leen bëgg suul mooy tey nañ jël dossier bi léegi ñu teg ko fële buñ waxati dossier aji saar ñii tey tey tey tey tey bu nu amoon maanaam tey ñu toog di si ak saar bi ñu suul ko teg ko fële bañ ko tuddati ñoom dañuy fekk bu tëb te bu ngeen ko nangoo yéen sénégalais jaroo leen sax topp seen ginnaaw barke yàlla joo leen àndal xeex jaroo leen dara ngeen bàyyi xel bu baax a baax ndax lu mi lii dafa dafa bon lii lii yàq yàq kii dëkk la quoi yàq comme ay juge ak ay ay da foo la daal fo foo foo fo comme xale yu ndaw di fawee dëkk maanaam fi mu toll nii loolu ngeen war a teg xale yu ndaw yi di fawee dëkk bi nekk ay paa yor xelu xale yor xelu cuune yor xelu fo tappale ci dëkk bii ñu indi ko ñun loolu lañ war a lijjanti tey mais nekkatut ay dossier aji saa dëgg la walla du dëgg beneen bi tam ma ñëwaat ci beneen côté mu ca ci Gabriel kii ngeen moytu ko xaw ma Gabriel kan xaw ma nu mu tudd ko démb dama dégg mulaa di def benn kii Gabriel ku ku muus nga ku mën a waaxu din nga ku am xel nga ku ku yeewu nga <laughs> nante dëgg nga da ngaa dugg ci live Ousmane Tounkara ak euh, Mollah Morgun mais da nga leen waaxu ku la dégg ci sa wax day mel ni yow yaay yaay am dëgg te ni nga duggee moo garaaw da ngaa dugg yow li nga bëggoon am nga ko mooy da dugg pour Moura Morgan li muy toog naan am xam na la génne photo tubaab boobu génne kii affaire yooyu xam na la léegi da nga doon ñëw pour fenloo Moura Morgan ndax Moura Morgan day indi ay information pour léegi information yi mu indi pour sénégalais yi ne Moura Morgan ay information wérul day fen te yoo ko mu noppi nga waaxu léegi yow lenn dong man laa am céy bu ma fekkoon foofu man wala tey ku mel ni man tey nga defoon tey ma lay toog di la laaj yàlla xa di nga daw di nga daw te te waat vocale nga jëm di nga ne danga am problème mu wala jékki-jékki ne téléphone baa fayoon loolu moom awma ci sax werante léegi yow ci sa biir wax Gabriel kii nu xaw ma lan jàppalekat dëgg dëgg dëgg dëgg kaa wane ci sa wax nga ne da ngaa ànd ak jigéen pour jigéen da nga àndal mu am dëgg mu ñàkk am dëgg Adji Sarr am dëgg ak ñàkk am dëgg moom nga faral loolu mooy yëfu tàppale loolu mooy ñàkk dëgg loolu mooy nit ku bon nit koo xam ne yow dangay far nit nii rek far rek ndax jigéen la muy jigéen muy góor ak ku mu mënta doon fii góor gu fi toroxal jigéen dan la war a teg ci yoon jigéen yàlla moo ko teral jigéen kenn warul dóor jigéen kenn warul toroxal jigéen waaye jigéen bu toroxal góor yi it maanaam doomu aadama doomu aadama dan laa war a teg ci yoon booy ànd ak da ngay ànd ak ni ci dëgg tooñkat bul ànd ak moom tapale weesuwut nga ne ki bu tooñee damay and ak moom bu nekkee ci dëgg damay and ak moom loolu mom anduk fen bu leer nañ la wané ni yow kan nga kan nga légui benen bi tamit dégg na la ci say biir wax ci say biir wax ma dégg la nga am euh, manam lan nga ki wati sax lan nga ci ki wati sax point bo xamni tek na ci baram ki la ci comme ci sa wax ji ma bayiko ci xel bu baax baax lo xamni luy wané ni yow mi dal dëgguwuloo jubuloo beneen bi tamit voilà ci Mollah Morgun yéen ñaar yow ak Mollah yow kay bu fekkente ni Mollah daf laa nee nga dafa nekk ci réseaux sociaux di la fesal di la sosal di la fenal ni nga ci duggee ku ko dégg ku nite mu dégg yow ni nga ci duggee maanaam day xam ni kii nii yow da ñëw pour bërëf dara safu la li la Mollah wax dëgg la ku wow làmmiñ nga beneen bi yow bu dee que yow dañ laa sosal kay mu laa mo sosal wala dara yow da ngay dugg nga fenloo mu laa nga ne ko sa vidéo yooyu sa foto yooyu fi nga naan sa téléphone xaw ma daa fay ak xaw ma mënoo ko gis ak loolu ay tappale la ay dóor la mais yow yow da nga waroon setal sa bopp ci mu laa ne ko mu laa li nga koy wekkee yow wala nga def sa live ñun ñu koy sàkku ci yow pour nga loo mu laa nga def sa live spécial nga génne sa document yooyu génne sa foto yooyu nga teg ko nga ne mulaa mii kat li muy wax day fen façon daaneel boobu mais ni nga duggee démb daal da ngaa na lu ma bëggoon yulli ma fàtte ko jot gi maanaam mayuñu ko mais daal li ma leen wax daal yéen mbokk sénégalais yi daal ngeen utiliser seen maa nii ngeen yeewu seen combat bi fu mu toll nekkatut xool xalaat leen nit ñi ci dee lii ñiy dund am leen loo leen jàng ngeen teg ci baaraam yàlla xam na ni affaire Adji Sarr buñ ko suulee nii fay ko noonu nit ya dee ñu jàpp ca ay nit ñu toog ñu bëgg ko fay noonu ne décision bi daal jeex na comme ça te avocat moo ko waral te procureur ba moko waral te ñinga xamni ñom ño wara atté deug ñom ño ko waral ay ndëgg sërëx ay nit dee ci barke ku jugati ngir nit ci Sénégal wala nga jugati nan da ngay xex ku ñak fayda ku ñak bop ku wayé di dëkk bu paré gut dëkk fo mo nek ni kon bu boba considéré len Sénégal li ci ku am xel lay waxal ci ku nité ci ku xam manam ay mbir fa mu jëm ci ko xamni ni fawulo deug deug da nga bëgg dëkk bu baax ndax ku bëgg dëkk bu baax da ngay bëgg sa bop da ngay bëgg sa bopp booy booy xeex nga xeex lu am fulla lu am fayda mais bu fekkente ni dossier bii fi mu nar a mujjee mooy comme ñu ñu woo leen ci ndëgg sërëx yi ñu leen woo ngeen wuyu ko ci mooy lan mooy dossier bi moo taal dëkk bi dossier bi dafa indi problème léegi dossier bi nañ ko gas suul loolu gas nañu ko suul dañ cee génn lolu gasuñu ko sul, lolu seen tapale yi ak ñom pour bañ fi joggé ak bëgg neub seenu cuune ak seenu banditisme manam lolu la ku leen jappalé ci sul dossier bi képp ko xam yaangi wax waxi pour dossier bi nañ ko sul pour jammi dëkk bi pour ki koku yaangi and ak ñi nga xamanteni ci si ñoo rey xale yi yaa ak ci ñi nga xamanteni ci manam maître El Diouf ak ñu melni ñom yaangi bëgg muccal ñooñu yaangi bëgg ñom pour tay ñu firi ci Sénégal ñu fatali li rek ngeen bëgg kon bok ko euh, maanaam jëf dafay mat comme te dem ngeen ba toll fii seen baa bi dem ba nga xam fi ñu toll nii lan moo lan moo fi des mooy ñoom li ñu doon def këppu na seen kaw léegi fi ñu toll nii lii ab sos la pour pourquoi ñuy sosal nit kii seen sos yi fu ko teg ak ñi dee lan mooy sababu dee bi fan la jóge li fi am yëpp kii ya lakk li fi jot a am lépp loolu lan war a teg ci taabul ñi nekk responsabilité bi nga xam ni maanaam ñoo yëkkati loolu ak tamit dafa am lu garaaw yéen li Ousmane Sonko wax yéen bàyyi woon ci xel mais fa kay fa mbaxane doonee benn ben, moo falsifié falsifier falsifié maanaam manam yi pour diw lepp lu koy setal na ki def lu koy takal bu sama gars yi len xel ci li lu mel noonu lu mel ni ndax Sénégal war ngir ko seetaan metti ila djub Diouf bosam dafa dajji fang kon bok ngeen ñu and ak fulla and ak fayda ñu jog pour defar réew wala ñu tok ku nek tok sa keur subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك